ndem si yàlla asu soxna hôpital ba mu faatoo libération nee na ñu ndekete doomam fa njëkk a faatu ñu nëpp nëppal ko yëral xët mu njëkk yéenekaay bi Moodu Mbuub di jëkkër asu moo wax waa libération nañ ci weeru mars 2019 foofee ca l'hôpital Amadou bu Louga asu soxna accouché woon na fa waaye xale bi ba muy judd prématuré la ndax tam ci l'hôpital boobee nekk libé nee na ñoo naat na a anam yi mu faatoo ci seeni loxo mooy coow ak mbambu ci tàmbali na ci ab enquête am bi nee nañu direction bu l'hôpital ba def nañu ab conférence de presse doon indi ci li xew waaye waxuñu fa benn wax bu taxaw maître Patrick Kabou di avocat bu bi di ñu wax ci biir journal bi ne bi ma déggee directeur l'hôpital bi mu wax bu nuppi dama russimato génnam gi gàcce la mu ne noo mën a jiite ab l'hôpital jigéeni biir ñëw fa war a mucc ñu sàggane ko ba mu faatu mokki mu ëmb nga toog di ca wax war a leeral nit ñi war leen mën a wax lu ñu dégg defoo ko waaye mel ne correct ci kaw nit ñi nekkeewu fa dara lu dul di xaxar ak di corriger defoon na avortement boole ci ki dafa amoon hypertension loole rek waroon naa tax ba mu duggee ci l'hôpital ba ñu waroon koo bañ a sàggane ci xët mu njëkku la témoigné ay témoignage ak yu bàyyeekoo ci ay jigéen yu mas a accouché yi ak coonaa kub mitit bu ñu fa dund ba ñu fay matu l'observateur jaari ci coow li defub gëstu bu yaatu ci xar kanam wu ñaaw wi hôpital yi réew mi amee ak càggante ak cuune ak plateau médical bu màgget yéenekaay bi jàpp na ne yi bokk na ci waral insécurité sanitaire gi nit ñuy dund bu ñu woppee ba dem l'hôpital hôpitalu Louga ak la fa xew ngi ñuy wax ni Macky Sall àdduna ci ba xam le ne santaane nañ ñu leeral yëf yi te fu ab rëq-rëq am dee su ko jéggale mbir meneen mu ñu mënut a jéggale journal l'info nee nañu moo di la xew ci nañu jëf joojee merloo na lool moodu moodu ya ca réew ma démb ñu bari ci ba di Pape Abdoulaye Seck dem gise ji ak maire bu yi ñoom doomi Sénégal ya fa nekk nee nañu dañuy manifester ca Florence ngir ñaawlu li ñu def doomu Sénégal bi ñu dellu su wax wax ci njëgu dund gi ak xibaar bi ci Abdoulaye Daouda Diallo joxe Le Quotidien xamal ñu moom Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances démb ci assemblée nationale wax na fa juróomi téeméeri milliards ak juróom fukk ak juróom-ñaar di milliards état bi def na ko ci xeex njëg yi yokk Sud Quotidien ne ko dalal na xelu député yi ci anam yi ñu war séddale recettes yi war tukkee ci pétrole bee gaz bi ñuy séentu ci réew mi Soleil national nañu ngir bañ contrôle ci la nekk jamono ji l'homme des affaires bii di Cheikh Amar moo ko yóbbu ci yoon di ko toppe ak njublang mu di abus confiance source waa nañu Cheikh Amar nee na Samuel Sarr dafa ñëwoon ci moom ne ko président jot jottali leen ma l'observateur ñu wax ci responsable APR bu mag bi nekk ci joote ju rëy yéenekaay bi ab responsable bu nekk ci parti Macky Sall bi di APR ñu naan ko SM Okoli yéenekaay bi nee nañu moom waa ji dafa sàggan ba ay photom ak i vidéom loxoy xale bu jigéen bu mu doon génn la xale bu jigéen ba jël image di ko ci santage ba wàjji mujj ko yóbbu polis yëf yi ma nga xewe ca Thiès Thiès ak leneen lu garaw lu fa xew journal La Tribune ak La Sénégal xëy nañ ko ci seen xëtu njëkk ca quartier Madina Fall la ñu bett ñaari góor jigéen benn waay ak nijaayam ñuy def yëf yi saay-saay ci seen biir oto ci digg weeru koor